ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci fàddilu mi buru yàlla dool dino ay maqaam yàllaaw أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أنشها بك وشريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون bismillahi irrahmani irrahim wiqayatul bika wa bilqur'ani wa birasulillahi fi l asmaani ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana tawallana tawallana ata nasira saalihin wa muslihin muxlisina naasihin yasir lahum bi lisi taasara fa kullu ma yasartuhu tajazara yasir lana jamia ma yanfaxuna wa kufana jamia ma yaduruna mbokk yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ginnaaw ba ñu sant yàlla sunu borom bi subhanahu wa taala ñi ngi julli ci yonent bu tedd bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam naka noonu ñi ngi nuyu sunu kilifa diine yi nga xam ne ñoo bokk biir réew mi yëpp macha allahu di leen jox seen wàccuwaay wi leen sunu borom subhanahu wa taala jox naka noonu ñi ngi nuyu bu baax sunu kilifa aada yi di sant nag képp koo xam ne yaa ngi ñuy bàyyi xel ci sunu ëtt bi nga xam ne mooy ëttu daara ji Euh, tey nag ñu ñëwaatoon fii ci kilifa gu mag comme ni ñu koy defee ci sunu ay numéro waxtu wu ne di topp boroom xam-xam yi nekk ci biir réew mi yëpp ak yi nekk ci biti réew tey nag ñu dellusiwaatoon fii ngir waxtaan wu am solo wi nga xam ne séqoon nañ ko ak Cheikh Ibrahima Ndiaye Al Quran askan wi nag ñoo sàkkuwaat waxtaan wu am solo wi ndax ba li ñu defoon dafa am solo am solo goo xam ne mboolem képp ku ko diglu sàkku nga ñu ñëwaat seqaat ak moom waxtaan tey nag loolu moo doonoon sunu tànk ñu fas yéene jukki ay waxtaan yu am solo seq ko ak Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran kon Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. waaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. wa rabbi auzu bika min hamasati sayatin wa auzu bika rabbi an yaqdurun bismillahi arrahmani irrahim la qawla wala quwata illa billahi aliyul azim seydina Ousmane ñi ngi lay fay nuyoo ñi ngi nuyu kilifay diine yi ak kilifay aada yi ñi ngi nuyu itam téléspectateurs yi nga xam ni ñi ngi ñuy suivre fii ci réew mi ak bitim réew di leen dalal ci biir émission bi di leen wax ni aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye alquran ñi ngi lay sant bu baax te di la gërëm ci yaatal gi nga ñu yaatal ci sa jëmm ndax xam nañ ne jot gi mayewu ko waaye sa temps it mayewu ko waaye nag alhamdulilahi rabbil alamin ndax diine rek moo la ñor macha allah barakallahu tey nag waxtaan bi dañ koy tënk ci juróom-ñeenti ponk juróom-ñeenti point e. incha allahu taala bi ci njëkk nag askan wi nag ñoom ñoo ma yónni laaj yi may laaj yëpp ci ñoom la jóge ndax xam-xam rek moo ñu ñor incha allah kon Cheikh Ibrahima wàllu noonu tey ci lañ bëgg ubbee ndax wàllum noonu dafa doon loo xam ne jaaxal na doomi aadama yëpp mu doon lu doy waar Cheikh Ibrahima wàllum noonu nga lañ bëggoon tey nga dimbali ñu ci am loo ñu ci indil naka noonu ñu mën a xam naka lañ ko mën a moytoo incha allah. waaw Seydina Ousmane wàllum noon dafa nekk loo xam ni suñu boroom subhaanahu wa taala moo ko njëkk moytuloo nit ñi xamal leen ni am na mbindeef moo xam ni seenum noon la yéen nit ñi na ko moytu te mooy iblis yonent bi sallallahu alayhi wa moytuloo ko nit ñi ba ci jamonoom am na ku feeñoon koo xam ne da doon woote ak yonent ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ni deretam dagan na ci yéen ku ko gis na ko rey ndax seenum noon la day noonu lislaam noon nag nekk loo xam ne lu yàgg la ci biir nit lu jiitu sax lislaam ji nit ñi dañ daan ami noon di reyante wax nañ ni ki njëkka a dee ci li yàlla bind ci nit ñi rakkam a ko rey ay doomi aadama lañ ci luñ doon xëccoo rek mu noonu ko rey ko nga xam ni noon jamono bi ko nit ki amee dugg na ci danger arab yi wax nañ nag ni noon bi la gën a sori noon bi la gën a jege sax ko yées mooy noon boo dëkkandool sa dëkkandoo euh, wax nañ ni ci jamonoy Muawiya surtout yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaare nañ ci soxnaam sum doon sëyal ngir soxna si noonu gum ko noonu ñu digal ko mu rey ko dig ko ci dara mu def ko kooku bu dul woon am noonam du ko def nga xam ni bokk na ci danger yi ñuy gën a seetlu ci biir nit ñi ñu koy defante nit bu xasee ba def danger rek boo ko xoolee dangay gis ni danger bii mu def kim ko def da koo noonu hmm. kon xam nga noonu daanaka baaxul yàlla tere na ko yenent bi moytuloo ko nit ñi nit ñi ci seen biir it war na ñoo moytu képp koo xam ni jubluwu la noon noonu nag dafa am ay sabab si na Ousmane. bëgg nañ ko ñu leeral lan mooy sababi noonu. waaw sababi noonu mooy nit dina la bañ noonu la ci li nga am nit dina la bañ noonu la ci saw melokaan. nit dina la noonu ci say daraja nit dina la noonu ci sa xam-xam nit dina la noonu ci sa wërsëg nit dina la noonu ci loo am te amu ko mhm. yaa ngi dégg yooyu nag moo tax am noon doole ji muy am kim noonu du mhm. bi sam noonu doole ji muy am yow mim noonu doo ko am ndax moom day ànd ak seytaane moom ki la noonoo waaw ki la noonoo lépp lu muy def da ciy ànd ak seytaane moo tax du yor doolay boppam moom kese moo tax ku jëram muslu la ku jaram moytu la noonu nag am na lu ci mën a musal nit natt nañ ko ci ñaar benn ba wax nañ ni képp koo xam ne danga bari ay noon di bari looy génne sarax te lii boroom xam-xam yi ci àdduna bi yépp ci dëppoo yàlla mën na la dimbali ci ñoom ndax seeni pexe day dajeeg sarax bi ñu nekk fa di xeex diirub juróom-ñaar fukki mën naa bañ agsi lim la doon fexeel ndax sarax bi nga génne. moom sarax bi nga génne. waaw sarax kon sarax luy wàññi doole noon la. nit ku bari noon rek na bari lu muy génne sarax. waaye nag képp koo xam ne xas nga ba am noon moom yow moom nekkatoo ci sécurité waaw yow moom nekkatoo ci sécurité ndax pexem noonu. du dañ ci moom moo catayam ba keroog ngay dugg biir bàmmeel noon bu la noonu jamono bu nekk rek mi ngi lay fexeel Seydina Ousmane. ah Cheikh Ibrahima kon noonu lu doy waar la léegi kon nit ki nga xam ne euh, dañu ko noonoo tey mën na jug ñëw ci ku sell koo xam ne nitu yàlla la mu mën koo ñaanal ci loolu mu mucc tey su ñëwee ci biir alxuraanul karim yi ndax suñu borom def na ci loo xam ne tey nit ki ñu noonu mën naa ñëw ngir sàkk ci xam-xam ci boroom xam-xam. ci li suñu borom indi mu mën koo dimbali ci loolu safara si maanaam. aw xam nga alquran léppi doomu aadama ji ay doomu aadama yi yàlla da ko cee dajale doomu aadama yi seen mbooleem soxla yi am lay faj soxla sa lépp suñ borom dugal na ko ci biir alquran alquran nag dafa ànd ak ay gaayam ñenn ñi ay yonent lañ yàlla yónni leen ñoom ñu ñëw wax laay ji wér ci alquran ni yàlla moo waxal boppam ni dénk na boroom xam-xam yi nga xam ne dañuy tudd yàlla kaw suuf si mooy wala xadd katabna fii saburin min ba'di zikri anna al arda yarisuha ibadiya salihun loolu aaya la kenn mënu koo dindi yàlla nee na dénk naa tuddkati yàlla yi kaw suuf si ñoom ñooy orienté nëbbatu nag moo mën a ñàkk léegi ci àdduna nit ki soo amee loo maîtriser tul demal ca ñi ko maîtriser ñu dimbali la ndax foofu la àdduna toll te jaxasoo gii ci àdduna képp koo xam ni amoo kaaraange ci dëgg-dëggi kaaraange yi nag ah sa àdduna mën nga ko bañ amee ni nga ko bëggee. kon ki nga xam ne am na ab noonu euh, doonul kaaraange ci moom wala wóor ci moom mu toog rek croiser le bras te xam noon bi mooy kan. waaw fi mu ne ci kaaraange dafa cee am genn xeetu kaaraange goo xam ni. mag ñi xam-xam boobu sax daaw ñu ko dénk ndaw lu amul ñeent fukk at ak benn mm-hmm. te buñ la koy jox dañ lay wax ni la ki nga koy defaral de soo ko ko doon defaral na nga ko wax ni ko doomi boppam sax bu jugee di jéem ci moom dara mën naa faatu li koy dal moom la ciy gën a néew mooy faatu ah, ndax bëgg nañ ko ñu dimbali ndax euh, doy na waar loolu jamono bi jaxasoo na te euh, fi ne secret bi ngay dégg mag ñi daan ko déwante muy secret kafaaka kafaaka kafaaka dañoo wax ni am réew réewum lëmm mën nga leen dajale aar ci ñeenti bay di kafaaka rabbuka waaw kafaaka rabbuka fi fiikum kafaa kifatan kafaa kahaa min kamim kaana min maliki kafaaka rabbuka kaafil kahfi kaabiri fii min kawkabin kaana yuhki kawkabal fuluk ay alxuraan yi ñu ko ràbbee nag du ko indi ndax damay bañ gaa di essayé waaye benn bunt bu ne dafa ànd ak juróom-ñaari ay alquran yu koy accompagner mooy tax mu mat. nga xam ne kafaakara bu ko yow da dañ ci da nga liggéey ay kaaraange yu bëree bëri euh, yu bokkul. kafaaka rabbuka boo ko liggéey lee nit ku ragalul yàlla tëna réew moom dëkk bu ko ñëpp doon xeex ba président ba bokkaale ci ña koy xeex duñ ko mënal dara allahu akbar am na ci ñoo xam ne sax boo leen dee liggéeyal ka euh, secret bi bu seeni rawaan amul doole dëgg dëgg da ngay dugg xalwa ngir doole leen sinon buñ ko ànd sax ñoom duñ jug fi toog ndax dañuy tawat. nga xam ne kafaaka rabbuka ca secret mag ñu njëkk ña woon. nit yàlla yëpp ko wéral jëfandikoo ko nga xam ne jamono ju ñëw dañ koy boole ci jamono ji ba jamono jooj dem ñeneen ñëw jël ko mook salaatul ñoo ñooyam ak salaatul naari génération yëpp day ànd ak ñoom leen accompagner waaw ni salaatu ala nabi ak zikrullahi téye adduna nga xam ne adduna bu doon daa am kanam zikrullahi mooy kanam kanamam bu doon daa am ginnaaw salaatu ala nabi mooy ginnaawam bagage yi wëlli yu itam daa am ay point yu leen may ñoom ñu téye ci salaatu naari yu ak kafa ak salaatu fatiha noonu lañ mel ci biir système bi ñoom kenn mënu leen ci identifier dañ leen cee mbaa yàlla ci leeru yàlla gi lu ne lañ ci man te lu ne lañ ciy def Seydina Cheikh Tidiane nee na salaatu fatiha nit ñee ko xamagul waaye soxla bu mun munta faj amul moom salaatul fatiha moom salaatul salaatu naar yu mag ña ko yoroon bu ñu musaana soxlam ndox ci kaw asamaan si dañuy taalub sébb wër ko di ko jàng bala ñoo pare ndox mi ci kaw asamaan si lay jóge fay sébb yooyu mooy secret lasraar yooyu mooy bagage yi mag ña <laughs> loolu mooy bagage yi mag ña jërëjëf Cheikh Ibrahima kon euh, leer na ci boppi nit ñi nga xam ne ñoo ko doon euh, laaj te mu bokkoon ci laaj yi nga xam ne jiitu na ci laaj yi nga xam ne euh, askan wi ñoo ko bëggoon a xam muy wàllu noonoo ak kaaraange gi nga xam ne moom la ci doon doomu aadama bi war a taxaw ba sunu borom man koo muccal ci loolu jërëjëf Cheikh Ibrahima ci laaj bu am solo boobu waaye ci tontu bu am solo boobu macha allah euh, ñi ngi santaat yàlla bu baax ci sa jëmm ji toog euh, ñaareelu laaj bi tey nag laaj yi dafa xaw a bari ndax askan bi ñoom ñoo ko yittewoo di ko laaj moo tax ñu bëgg rek émission bi ñu tënk ko ndax euh, xam naa ne sa jot taxut mu bari lool lool. ñaareelu laaj bi nit ki nga xam ne dafa tëju lool Cheikh Ibrahima d'abord lan mooy waral tëju jékki-jékki rek tëju loo loo rek du am résultat. doo ci doo ko amee na ko bëggee lan mooy waral tëju d'abord ak ginnaaw bi nga xam ne doomu aadama bi tëju na lan la mën a jëfandikoo wala lan la ko sunu boroom mën a indil ci biir alxuraan ak ay secret ngir mu mën a tijjeeku ngir aajo mën a faju waaw gis nga booy jàng mbirum xëy bu lu nëbbu di topp sirruy doomu aadama secret doomu aadama nit di nga xool mbiram xam ni kii bi muy tëju juddoogul doomu aadama tolof tolof dina ko fekk ci biiru bu yaayam sax mu defar ma mu laagoo fa nga xam day juddu indaale problème moom boo xam ni làmmiñu nit ñi ñëkk ko yóbbee. allahu akbar. yaa ngi dégg doomu aadama na juddu bët du mën a gis fekk cata ko ci biiru yaa ngi dégg doomu aadama dina juddu bopp bi dépassé walla jëmm ji jaxasoo fekk loolu ko mu indaale moom. bindaale ko ko waaye da koo dalee fa mu formé woo tubaab bi sax déformé lañ koy wax. nga xam ne nit ki mën na judduwaale ak tëju. nit ki mën na judduwaale tëju nga xam ni giiru dundam nim ci bëggoon a dundee wala ni nit di dundee du ni mën a dundee te làmmiñ da nga ko yóbbe. làmmiñ nag dafa bokk ci liñ saxal wéral ko ni moom dafa am ay saafara dañ ko war a moytu moog bët bu ñaaw. yooyu yàllaa ko wiral waa ay nit yàlla yeeg yi yonent yi dëggal ko alxuraan seede ko nga xam ne loolu moom nit ku mën a doon danga cee mën a war a muslu moo xam dañ lay bindal ngay sangu moo xam dañ la ciy ñaanal moo xam dañ lay wan yoonu sarax wu la ciy musal waaye képp koo xam ni muccagoo ci làmmeñ ak bët yorogoo loo moom sa dund sax nekkul ci sécurité mhm. ndax nit dina jug léegi ñu cat ko du àgg fa loo xamante ni si ni nitu yàlla yi muy awliya yi gën a mag ci kaw suuf si gën a jige yàlla dañ koy moytu gisantuma laak yow mi nitu simple fii day ci almadi romb naa fi ay kër yu baree baree baree bëri yoo xam ne seeni borom mënuñu ko dëkkee ndax lan ay bagage dong dong la de yenn yi rab yaa ko nangu yenn ya seeni borom dañoo am ay tolof tolofi yaram te la ne ci ñoom duñ dindi woon cat ya nekk ci ñoom ak bëti doomu aadama yi rek dëkke ko waaye bërëb boo xam ne la fa nekk ku ko romb wax ko borom na fa bëgg a teg tànkam nag mu të ko doomu aadama làmmiñ baaxul de Ousmane mën nga ubbi entreprise jël ay mbooloo dugal fa ñuy liggéey waaye waxi nit ñi ak cat nit ñi tax daanaka doo fa def ñaari weer ñetti weer tëj ko te doo xam lu nga tëj ko waaye ki mel noonu jaaxle loolu Cheikh Ibrahima naka naka naka nga ko mën a dimbalee ci euh, tëju googu ak jafe-jafe yooyu waaye ginnaaw ba suñu borom subhanahu wa taala dogalee loolu ci moom euh, naka la naka naka la mën a génn ci situation boobu. waaw xam nga nag man su dee man ci sama dimension nga bëgg a wax ak man man man xam nga man ismullahil azam laa yàlla wu bënn xam nga tur yàlla wu bënn wuy si boroom muy dox ci ndigalul yàlla di dox ci doole yàlla wa anna al quwwata lillahi jamian kattan dafa nekk ci loxol yàlla nekkul ci loxol nit ñi mm-hmm. ki yàlla oriente kattan gi ci moom nag kooku rek moo yóbbu nit ñi moo tax bari na solution yoo xam ni mm-hmm. gaa yi dañuy yenu ay bagage teersee moom fii ma dimbali leen ñu delloo mm-hmm. man damay ñaanal sëriñ buy ñaanlu sëriñ sëriñ buy ñaanlu sëriñ buy ñaanal nit ñaanal président yor projet bi at nu ko ñëw yenneeku ko fii ma defar ba mu baax mu dem yóbbu ñëw. <laughs> allahu akbar. ay defar nag man leen da ngeen may musal. loolu tur yàlla euh, ismullahil axsam rek moo moom mooy mooy mooy sabab loolu. waaw boo yoree ndigalul yàlla yor ismullahil axsam. Hmm. sa kàttan bokkut ak ku jàng rek wala kuy tegtalu. wax naa la ko ci émission bee ñu génn. Hmm. ni la ki nga xam ne dafa am fattu ak fattul akbar dafa ubbeeku ci suñu borom. kooku am na lu man mm-hmm. waaye ki nga xam ne nag dafa am kas nga xam ne day gis mm-hmm. bokkuñu dayoo te lépp loo dégg nit di ko def muy ab sëriñ ba nga dégg ni day sikar ñaar am teel ci moom wala nga moytu ko ndax doole ji génnee ci leeru yàlla mm-hmm. du génne ci leneen lu mën a doon allahu akbar ngi dégg te nag amul lenn lu jafe loo xam ne loola yàlla mënu koo yombal say jaalallahu baada usri yusran li jafe nit ñi mhm. yomb na yàlla yàlla nag dafa am foo xam ni boo ko féetee rek mu féete la fa moom sunu borom subhanahu wa taala man arafa nafsahu faqad arafa rabbi boo jege-jegeloo yàlla rek yàlla jegal la boppam ku jege yàlla nag liy sonal nit ñi du ko sonal dégg nga wax bi moo tax ñaan yàlla nitu yàlla dong nga ko man ku yàlla digal nga ñaan rek yaa mën a ñaan <laughs> wala boog di nga ñaan waaye doo ñaan lu nangu te ku dul ñaan lu nangu jërul ñaan loo allahu akbar képp koo xam ni ñëw nga ci moom ñaanloo ko la nga ko ñaanloo nanguwul jërul ñaanloo ah loolu day euh, leer na Cheikh Ibrahima euh, kon euh, laaj boobu leer na naññ ci askan wi kon daal ki nga xam ne yàlla dafa dogal mu tëju Cheikh Ibrahima bu mu toog na jóg ñaanlu ndax ñaankat mag nit ñi ngi wax ne fi lañ ko fekk waaye it fi lañ koy bàyyi te ñaan kon lu dagan la Cheikh ñaan lu dagan la Cheikh bi mag ñëpp ci baatin dani ñaan mooy ngànnaayu jullit. gisoon na jaas yi mhm. bali fital yi yéeg arme yi yonent bi gisoon na ko de moom daa xeex <laughs> xare na ñaata xare waaye ba mu fi bàyyee loolu lépp ba muy dem dana ñu xee ñu ni ko waaw mu ni ñu ñaan mooy seen ngànnaay yàlla nee na ñaan leen ko mu may leen su ngeen ko ñaanul dina leen fi jëlee indi fi ñu koy ñaan di ko ñaan mu leen di may maanaam fi ne bu la doon laaj lu neex yàlla suñu borom boole ci ñaan yoon wi ñuy jaar ba ñaan nag moo tëggaa yi ñaan nitu yàlla dong ko man ndax nit bu la ñaanloo nga ñaanal ko nanguwul wala nga bëgg koo ñaanal te xamoo moom lan mooy problème am dèjà foo jaar ba ñaanal ko. Mm, wallaay dina doy waar lool. xanaa la ko barki démb ni la doomu aadama bala koo ñaanal da xam nan ngay tuubee ay bàkkaaram moom ndax nit ki tam. fi ne boo ñëwoon di ma ñaan loo amaale ay bakkaar indi ko fi bakkaar yooyu mën naa tax li ma lay jox doo gis léegi nag yow bu dee sa bakkaar bopp xamoo nooy def ba ko nooy tubee bakkaar yi lool euh, sang bi euh, kon yoon waa ngi noonu euh, loolu moom bunt la boo xam ne bu ko nit ñi déggee kon duñu bàyyi bàyyindi ko kon dañuy jàll rek ci ñeenteelu tomb bi incha allahu taala Cheikh Ibrahima nit ki nga xam ne dañ koy liggéey ba amatul yaakaar ci boppam ay mbokkam yëpp amatuñu yaakaar ci boppam kooku nan nga ko mën a dimbale cheikh bi waaw liggéey day bu dee njabar yee ko def mën nañ koo dindi bu dee féticheur yee ko def mën nañ koo dindi ndax loo xam fa jóge xam cosaanam rek boo ci bëggee pexe du la leer du la réer te ak njabar hmm. alxuraan dafa indi cosaanam sayaatin yi ñoom ñoo ko xam xamal ko nit ñi nga xam ne ñoo bokk gëm-gëm muy pas-pas ñu def ko ci adduna bi lëre ko fi nga xam ni daa bari lool waaye ak njabar moom lu existé la lu wér ba demee ci alxuraan di nga dégg mu naan wa tabaxu ma tatlu sayaatin ala mulku suleyman wa ma kafara suleyman walakinna sayaatina kafaru yuallimuna annaasa sihr <laughs> wa maa unsila alal malakayni bi baabila haaruuta wa maaruuta wa yuallimaani min ahadin xataa yaqula inna nahnu fitna ñun kon xam nañ fi ak njabar jóge mën nañ koo topp ba lijjanti ko ba mu leer xam ni ñii ñoo ko yor ñoo koy doxal ñu détective leen dootu dox nga xam ne nit ki ñu liggéey nu ak dayoo bu mu mën a indi rek mën nga ko ci dimbali waaw lépp lu nit def tey ab doomu aadama ci lu bon def ko ci nit bu ñëwee fii ci man mën naa koo dindi. ndax damay faral di euh, dégg ñuy wax naan lu loxo def rek euh, loxo mën na ko dindi. waaw dañuy wax daal li waroon a wax sax mooy. lu ab jaam def yàlla mu ko bind mën na koo dindi. waaw ah, jërëjëf. <laughs> loxo yooyu ci génne. loolu lu ab jaam def yàlla mu ko bind. mën na koo dindi Seydina Ousmane. jërëjëf jërëjëf Cheikh Ibrahima euh, ba tey dañuy euh, continuer rek ndax waxtaan bi day am solo léeg-léeg ba nga xamee ne daanaka yenn laaj yi euh, doo ci bëgg sax génn wala doo ci doyal. ndax ni muy leeree macha allah sant nañ ci bu baax a baax a baax mu am loo xam ne daa bari lool ci réew mi ak biti réew ak fépp bari sëy yu muy tas muy góor gu tële. am na ci mag ñi waaye am na ci ndaw ñi Cheikh Ibrahima góor gu tële naka nga ko mën a jàppale ba ñëwaat a kàttanam gi ko suñ borom subhanahu wa taala euh, bindee. Mm-hmm. am na journaliste bu ñuy wax Baye Talla. Baye Talla waaw maa ngi dégg turam ndeysaan. Euh, ca émission yu njëkk yañ defoon ak moom nit ñi ñoo ko daan wax naan ko sëñ bi day teg motoor teggi motoor. teg moteur teggi moteur. teg moteur teggi moteur mooy li fi nekkoon dafay dindi def fi leneen kooku dama cee am ay sunguf yoo xam ni dama ko ci liggéey ànd ak tur yàlla waxal ko ci ñeenti émission ni man wàllu ngóora dama koy faj ba mu des ki nga xam ni dafa judduwaale ak tële. Ah, ki nga xam ne dafa kooku moom amu ko. te lu amul cosaan mënoo koo fabriquer waaye ak noo ko mën a amee rek ak problème boo ci mën a am gaaw a àgg daa gaaw am problème ak yi ci aju yëpp daal ñim dal xam nañ ko waaye façon bu dalee nit ak nu mu même bu yaa ko teg sa bopp sax am na ñoo xam ne ñoo koy teg seen bopp. ah am na ñu am na ñu koy teg seen bopp. waaw xam ne ñooy fooy seen bopp ba àgg foofu am ñoo xam ni daa am lu ñu def ba loola am yooyu yëpp nag mën naa koo dindi donte sax sa ngóor da ko koo sacrifier ba ñëwee man li ma yor mën na koo dindi. daa bari daa bari daal nit ñi dañoo wute Seydina Ousmane waaye la ca aju lépp daal moom mën naa koo saafara sëf nag koo xam ni bi muy juddu indaale fi ak ngóor foofu loolu loolu laa ci ah Cheikh Ibrahima kon xam-xam soriwul daa daa nëbbu eh, loolu baat bu. xam-xam soriwul nëbbuwul dañ koo gisul. xam soriwul nëbbuwul dañ ko gisul. waaw xam-xam soriwul daal nëbb wax jooju nañ ko teg soo xam-xam soriwul nëbbul dañ koo gisul allahu akbar dañ koo gisul waaw barakallahu jërëjëf Cheikh Ibrahima kon ñoo ko déggandoo mbokk yi euh, macha allah sant nañ bu baax a baax a baax ba tey dañuy euh, wéyale euh, sunu ay laaj yi nga xam ne mbokk yi ñoo koy laaj wërsëgu tëju wërsëgu tëju ak ki nga xam ne am na wërsëg lool waaye mënu ko jëriñoo ñu du ko tuddee ci wolof loxo bu bënn wërsëgu tëju lan moo koy waral ci doomu adama bi ak ki nga xam ne wërsëgam macha allah mu ngi am waaye loxoom daa bënn ba mun koo jëriñoo ñaar yooyu lañ bëggoon euh, ku ñu ko leeral te dimbali ñu ci bu baax a baax incha allah. waaw yonent bi dem moom yàlla may na ko koo xam ne amul wërsëg sax bu la ñaanalee sa wërsëg bënn sant wala koo xam ne moom wërsëg wa dañ ni daa tëju dong wërsëg wi. du tëju waaye pexe yi ci nekk tax mag ñi tuddee ko wërsëg wu tëju. ah ay yëf da ciy daf ciy faral di da ciy laxasu. yëf nag mën naa jóge ci nit ki ci boppam mu tëj boppam ndax am na yoo xam ni salaalu salama nee na yooya day wàññi wërsëg. Ah, nit dina tëj boppam. ah bari na man day waxambaane yu may ñaanaloo yoo xam ni njaalo gu méttee leen tëj. allahu akbar. ak teel njaalo ñooñu wax naa la ni. dañ leen a war a tuubal seeni bàkkaar bakkaar bañ sell ba seen ruux sell ñaanal leen yàlla seeni bunt tijjeeku ñu bàyyi loo leen la nekkee bari na jigéen ñoo xam ne ñee ngi fekk seeni moroom mënuñoo am xam nañ lañ def xam nañ fañ jaar ñoo ñu nag sëriñu kese kese mun leen a dimbali faw borom baatin lañuy ñuy waxtaanal waxtaan ak moom seeni jaar-jaar mu xam ko dimbali leen ci biir leeru yàlla ba pare nag deer leen a dimbali ci sayir waaye nit ki boo ko dee ñaanal da nga war a jiitu ci moom vérifier diagnostiquer xam li xew ci système am moom nit ki d'abord nga door koo nag jox ay bagage yoo xamante ni si nii moom lay jëfandikoo ngir mën a ubbeeku waaw waaw da doog connecté ba pare door a activé dégg nga wax bi. ay français laa làkk. dëgg laa wax bi cheikh programme yi ba pare nag doo leen activé. waaye duñ la indil oto bu paan rek nga bëgg cee bàyyi yi ci nekk organes yi ci nekkoon ak yooyu noonu ba pare jox borom buy gën muy panat mooy nit kuy ñaanlu problème yi da koy dindi ba pare door koo boole solution yi mu dem loolu moo tax nit ñi dañoo àggul fu ñuy vérifier nit ba pare nag bëgg koo dimbuli loolu mënut a nekk. waaw man bu may ñaanal ak nit Seydina Ousmane li ma ciy daj su ma la ko waxoon nga ne ma bàyyil ñaan. seetal nit dong yomb la santuma la ak ñaanal ko waaw Seydina Ousmane xoolal nit li nekk ci moom ci programme. suñu borom def ko ci moom. nit koo gis mi ngi gal ña mi ngi ànd ak ñaari malaayika mi ngi ànd ak juróom-ñaar fukki malaayika yu koy garde yow xamoo ci mulkum nit dara nga bëgg dugg ci kiiraay yooyu ni yaa ngi ci biir système doomu adama bi yaa ngi ko yaa ngi ciy doxal dara. lool loolu loolu loolu euh, loolu am na am na ay risques yu ci nekk. ah ñaanal nit xanaa xamul ni sëriñ bi ñaan mën naa dugg ci système nit faatu. Hmm? waaw waaw. nit yombul ni nga ko yombalee nii de. nit ñëw rek sukk ci sa kanam rek yëkkati ci lif oh. jox la nga ñaanal ko noonu rek. ñaanal noonu dem na waaye nag dugg ci mbirum nit dindi ay yëfam yi nekk ci moom nit ku bloqué. am problème nga ñëw dindi problème bam mu leer ko ni yaa ko dindil yow mii looloo yombul. waaye ñaanal ma bind faatax jox la nga sangu moom yom man na waaye da ngay dégg sëñ bi jaar naa fi jaar naa fii jaar naa fii. man nag yooyu ma ci dul fekk ku jaar fii doo jaar feneen. ku fi xas a jaar doo jaar feneen. olof laay làkk de ku jaar fii doo jaar fee euh, jërëjëf si Ibrahima léegi euh, ki nga xam ne moom wërsëga macha allah euh, day am waaye du toog ci loxoom. waaw loolu it pexe ngi ci. bi lañ bëggoon ku waaw wërsëg wudul toog. wudul toog waaw. ak loxo buy loxo boo xamante ni si daal muy lu ñëw rek dem. benn sëriñ nag ba ñuy jàngal ba si foofu de nit ku baax moom ab loxoom dara du ci toog. <laughs> waaye waaye xanaa mu <laughs> da ngeen jéem jàng dugal ko foo ngeen xam rek da dégg wax bi waaye comme ni ko olof indee moo yàq wax bi waaye nit koo xam ni wërsëgam ci boppam ni muy ñëwee ci moom mënu koo jariñoo te mi ngi ñëw ci moom loola moo jarañaan ñaan lu waaw man dama am entreprise di ubbi ko di ci liggéey nit ñaa ngi liggéey maa ngi leen di waaye man sëñ bi man sama bopp wërsëg bi mënuma cee jariñ sama bopp mënuma cee jariñ sama mbokk ndax gaaw gu mu gaaw ak tasaaroo gu mu tasaaroo loolu am na lu koy saral ñu jox la ko boo ko jëfandikoo niñ la ko waxee génne la sar yi ci war di nga gis ni sa wërsëg yaa ngi ciy tabaxi kër yaa ngi ciy dëkk yaa ngi ciy dimbali seen mbokk te àndoo ak benn fitna. ngir mën koo jariñoo nga xam ne nga xam ne alal ji dina ñëw waaye di ko mën a jëriñoo. waaw alal ji dina ñëw waaye du la fitnaal du def boo téyee téeméeri junni rek ñu feebar wër la soo téyee téeméeri junni rek tolof yi wër la soo téemee junni rek sa dara yàqu nga dugal ko ci yooyu mën naa dañ ci nit nit mën nañ am alal di ko dund ci dund gu teey ci kattanu nag mu gisanteeg koo xam ni. xam na doomu aadama mu dimbali ko ci lépp rek dafa aju ci xam-xam si naa Ousmane. waaw lépp dafa aju ci xam-xam. faaw nga xam waaw. waaw faaw nga xam. Hmm. bagage yi waaw bagage yi. bagage yi nag ñaar rek a ci am mooy nga yor ismulaahil azam ba suñu borom muri la kiiraayu nit ñi yaa ngi dégg. wala nga jàng ba kawe nga xam ni ci wàllu xam-xamu jàng ilmul kitaab am na niveau boo ci toll di nga mën a orienté jàmm. waaye sudul yooyu moom kenn war laa wooy borom xam-xam nga xam ne képp koo xam ne daal euh, euh, nitu wërsëg la mi ngi am waaye du toog euh, su ñëwee ci Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan dana ko ci mën a dimbali bu baax baax waaw man moom jëru sax ngay am ku yorul dara su ñëwee ci man mhm. ñu jëflante ma dimbali ko mu am allahu akbar xam nga ki am sax daanaka ki nga xam ne yorugul dara dara dara daaraa bu ñëwee ci Cheikh Ibrahima Ndiaye mu dimbali ko ba mu am ci kàttan yàlla ma dimbali ko ci ndimbalul yàlla mu am nga xam da ngay am foo jaar ak moom rek. waaw man man li jëntu ma waaj de man suñu borom laa amal affaire. allahu min suñu borom laa amal affaire ana minallahi wali rasulullahi minni. Mhm. yéen man ngeen am affaire waaye man yàlla laa amal affaire loolu yoon la waxoon. loolu la yonent bi man nag gaayam ak man affaire waaye man yàlla laa amal affaire. man turu yàlla laa yor ci laay branché wu ku ñëw ci man ci laa lay branché waale nga dem. allahu akbar macha allah macha allah barakallah. te ah ndaw laa de waaye yàlla gàntulagul kenn koo xam ne daa jaar ci man. waaw ah, am nañ ci ay firnde yu bëree bëri. am naa dina ci yàlla daal gàntulagul kenn koo xam ni kooka moom daa jaar ci man. bu dee da ngaa ami bàkkaar yow ku mën a doon nga ami bàkkaar ñëw ci man xam naa niñ koy tube bu dee da feebar xam naa niñ koy faje su dee yow ci sa boppam am lu ñu la piniree loo xam ni gëstu nga ba sonn xamoo ko man ba may dugg sa système di ko xam am na lu ma yàlla dimbalee nee naa la man yorumay bijjin yorumay xarfa fuufa ismulahil azam laa yor di ko liggéey ba mu bënn samay loxo teel a bënn gi nag dimbalul yàlla la ndax tur yu ma yor ni topp na ko juróom-ñaar fukki at mënu cee xam dara waaw ci onze ans laa ko liggéey ba jot ci bagage yi téye ko bu dëgër nag. xam ne suñu borom subhaanahu wa taala moo la nitu yàlla koo xamante ni si daa liggéeyal yàlla ndax man it ku tedd ki damaa am lu ma dimbalee du waxi tele nag waaye daal. bari na lu may wóolu sama bopp suñu tubaab rek waaye bu ñu fi ñëwaatee di nga ñu ci nag sang bi ndax daf ciy baax. dégg man la bari na lu may wóolu sama bopp suñu tubaab rek laa ci wóolu. man dama liggéey tur yàlla ba sëñ Tuubaa wax ak man jëhrëtan ay kàddu am yoon ma teg wàcc gu ma ci foofu laa ci mën a yem ak yow. jërëjëf Ibrahima am naa li ci des bu ñu ñëwaatee moom kooku moom euh, euh, loolu ñu naan forcé danañ la ko def nag nga mosal ñu gën ñu ci xuusal incha allah waaye comme waxtu wi xaw nañoo xoj ak yu mel noonu euh, dañuy ñëw ci beneen laaj bi muy wàllum listixaar ndax listixaar bari na ay façon bari façon seetin. waaye it jàpp naa ne seet nit gis ko xaw na jafe lool Cheikh Ibrahima te déy nañ ma ne ma suñu borom subhanahu wa dimbali na la ci nit ki nag jàpp naa ne bala nga koo seetal faaw nga bala nga gis faaw nga seetal ko ba noppi doo koo gis ko mën a ñaanal wàllum seet lañ bëggoon nga moom it nga dimbali ci bu baax a baax ndax euh, askan wi soxla nañ ko lool Cheikh Ibrahima. waxoon naa la fi ni la man am ma jotug seet damay gis. seet ku xamul dara moo koy def. nga xam ne nit mën na nekk bitim réew tey jot la téléphone nga seetal ko ndax seetu distance googu mën na nekk. ndax nit mën na nekk bitim réew. Mhm. woola nga xam lépp. nga xam léppam ak avenir am ndax nit ki day baax tamit mu xam euh, avenir xam ngir mu mën a xam fan lay teg tànkam cheikh bi. mën naa nekk bitim réew woo téléphone. ma wax ak moom ci téléphone bi loo xam ne mu neex ko mu naqari ko day dagg bee fekk si ba fii ndax yéemu man nit ñi ni ma jigee sama boroom laa leen jigee amul kenn koo xam ne dinaa bëgg a xam dara ci yow te duma ko xam xanaa yàlla nëbb ma ko te li ma nëbb ci mbirum nit ñi bariwul ak koo mën a doon hmm. tollu fu may seetee Seydina Ousmane man damay gis seet kuy xamul dara di seet a koy def mbirum nit ñi yàlla dafa am lu mu ma ci dénk loola laa yor di ko doxal nee naa la tur yàlla laa yor di ko liggéey coolu bari leeg wax jeeg yooyu yépp yi ma yor nii dafa nekk ndigal ma koy doxal samay baay samay maam maa ëpp xam-xam fuuf nga dégg looloo déedéet wallaahi mosuma ko dégg billaahi yàlla daf ci man daf ko ci kenn ku ma bokkal alhamdulilahi rabbil alamin waaw ñu dem jërëjëf seex bi allahu akbar eh, macha allah barakallahu Eh, wàllu rab Cheikh Ibrahima wàllu rab rab yi seeni bagage sayaatin ak junne yi rek ñooy dugg nit ñi di leen jaaxal ndax tey jii rek maa ngi dégg ci information eh, nit koo xam ne dafa jékki-jékki rek faat boppam faataale ñetti doomam loolu luy doon xew-xew ci réew mi Cheikh Ibrahima loolu doon lu doy waar ana loolu it lan moo koy waral loolu ba ma koy dénoncé naan wuti leen kaaraange yàgg na de te jamonoy tey jii de réew mi bari na lu ma fi yàlla di wan ma wax ko ba pare nit ñi di ci door a teg seen bët neewoon naa fii nit ñi dem leen ngeen lijjanti seen bopp ci teel te bañ a tooti ci wax yii fi nekk di waxi falaa falaa yii noonu laa ko waxee woon. képp ku amul kaaraange nag sëg dund moom nekkul ci sécurité wax leen ni leen man tukki naa def naa 33 pays weeri réew ci Afrique. ak ñett. waaw te Afrique boo ko xoolee cinquante et quelques pays la kon sama dox gudd na lool réewu arab yépp wër naa ko wax naa la fii ni la bari na ndaw ñuy ñaan di wax fii Sénégal. sama tànk bi fam tege seeni tànk tegewu fa sama bët bi ci lim tege seeni bët tegewu ci tiim naa fukki bàmmeel yonent ak ñaar tiim 41 xabru bu yàggul bi may mujj ci xabru Ahmad Badawi Égypte matagul sept mois yonent yàlla Ilias ak yonent yàlla Ayuba bi may mujj ci seeni bàmmeel matagul sept mois waaw ndax voyage boobu laa fi ñëwoon laajte la ñu ma Cheikh Ibrahima dafa nekk ci ay tournée. ñaa ngi dégg ci ndox secret ndox nga xam ne ndox moom ca la yàlla bind lépp ca la dëxañ lépp wa jaal naa min ma yàlla nee na da waaye ndox mi ci laa doxal lépp yor naa fi téeméeri ndox yu bokkul réew yuñ jóge téeméeri ndox yu bokkul ci réew yuñ jóge te ndox mu ne am na euh, am na secret bu boo ci mën a. loolu daa am def. ndox mu ne am na loo ciy def. waaw fi ne am naa sang sangat bu bees boo xam ne booy xamoon nañu ko tuddee <laughs> rapido. rapido ngir gaaw a yam. waaw macha allah. boobu nag xam nga moom dama koy kii nii mais bu dee ku ne bitim réew moom damay liggéey affaire boole koog sunguf yow yaa koy defaral sa sangoo ko waaye bu dee Sénégal fi moom booy yëpp xam rapido moom kër gi moom fi fees dell ko sangu si. ndax boobu dama ko bàyyi rek lu waaye joxe ma laalal la ci alhamdulilah waaw waaye dama ne ci appal kenn waaye néew na nit jóge fi sangu fi xëy suba woowu ma ne ma loola sotti na la ma doon lijjanti si ba ñëwoon ci rapide la rapido gi loola moom jot na kon bu ñu euh, euh, xuusee foofu euh, yaakaar naa ne wàllum këyit ndax wàllum këyit dafa doon loo xam ne Cheikh Ibrahima dafa yaatu te yitteel mm, waa Sénégal waaye rawatina muudu muudu yi nga xam ne ñoo nekk ci biti réew di fa sàkku ji ay xéewal ñu bare bari ñi ngi bëgg ñëw bëgg ñibbisi amuñu ay këyit ñii ñu ngi défaussé lu mel ne passeport wala këyit wu mën a doon. ngir bëgg cee jot wàllu këyit sax tey dinañ leen may ci émission bi ay ñaas yoo xam ne dañ koy témoigner ndax man nee naa la nit ñi dama leen wax bu kenn def vidéo ci di témoigner ci man. mais am na onze personnes yoo xam ne kenn ku nekk bi mu jotee passeport boo xam ne maa ko ñaanal ba mu jot ko da ko def vidéo sànni ma ko. ni ma sëñ bi ne ko nit ñi gisal seen bopp loolu dinaa la ci may tey ñaari témoignage yoo xam ne dinañ ko dugal ci émission bi pour nit ñi gis ko man ma tay cee wax ndax tugul du teew ñuy nataal. nga xam nit ñi ko jëflante ak yow ñoo ko seeral seen bopp. ñi ñu ba ñu yor ko ci seeni loxo nañ ko waneel seen bopp ñu dem ci beneen question wàllu kéet li ma ci xam duma toog mukk di ko wax waaye xeeti kéet yu nit di lijjanti kéet wala lu mu mën a doon benn ñaan ak benn sarax ci laa koy saafara si naaw salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te ne damaa bëggoon waxtaan ci sama benn sëriñ bu ñuy wax sëriñ Ibrahima Ndiaye marabu sëriñ Ibrahima njaay alxuraan waaw dafa nekk daal nit koo xam ne moom ku suñu borom defal kéemaan la ndax wax dëgg yàlla man toll nekk naa ci dëkk bi am fi ay at yu bari Ah, doon lijjanti këyit mu jafe ma lool waaye bii ma jokkook moom wax dëgg yàlla suñu borom yombalal na ma lépp lépp lépp lépp lépp waaw ndax suñu tëli moom sama këyit lijjanti naa sama këyit maa ngi ci maa ngi maa ngi koy sant bu yàgg am naa dama koy sant bu baax am naa sama këyit am naa liggéey macha allah maa ngi sant yàlla bu baax di ko sant moom bu baax baax di ko ñaax ni ko amuma fayam yàlla moo am fayam yàlla na ko suñu borom yi yàlla fayal ndax bi ma tolloo ci li jëndi këyit jafe woon na lool waaye bi ma jokkook moom mu dafa mu wax ma sarax yi ma waxoon ba ma génnee sarax yi maanaam balaa maa commencé sangar yi ma waroon sang sax balaa sangat yee egsi woo nañ ma dafa ma favorable ci sama këyit bi ma commencé sangoo sangat yi avant sangat yi di jeex matul weer jot naa ci ci ci sama kayit mooy nekk loo xam ne daal lu lu lu yàgg lu ma yàgg bëggoon la mu tëwoon ma lool lool lool waaye bi ma jox ko moom daal suñu moom defal na ma si jàmm ba incha allah jot naa sama kayit waaw ndax lii moom ñu naan werante xawante xëtuway lii moom kenn du ko xool naan amu ko waaw fi ñu toll nii nag di ko ñaanal yàlla bu baax a baax suñu borom moom fayam yàlla ko yàlla defal xéewal defal ko li mu bëgg moo xam yàlla na ko yàlla defal waaw di di wax nag fi nii moom nationalité bi lañ lañ lañ bëgg daal nga taxawal ñu defal ñu si ñaan bu baax a baax xam naa ni moom wàllum kii moom kenn kenn kenn mënu la ci suñu borom may na la ci lu mayul kenn ñu ngi lay sant ya ñu lay sant bu baax nag dina ñaanal jàmm di ko ñaanal bépp sénégalais waaw di lay def nag suñu borom may la xéewal ak gudd fan. ba nga ñëw fii si ñu incha allah waaw yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum mbokki Sénégal maa ngi leen di siyaar yéen ñëpp eh, di ñaan yàlla message bi fekk leen si jàmm waa Sénégal ñëpp waa man dëkk. Eh, maa ngi fii si États-Unis New York euh, di bëgg a def benn témoignage si sama benn nitu yàlla bu ñuy wax Cheikh Ibrahima Ndiaye alxuraan waaw moom day fa dëgg yàlla dama nekkoon di lijjanti sama passeport euh, ma dema dema dema dem di ñaanlu dema dema dem vraiment ba découragé nag découragé moom defoon naa ko moom mais daal ginnaaw yàlla ah, yonentam bu baax baax sama ñaari waajur oh, yàlla boole ma moom mu ñaanal ma mu garantil ma benn affaire nag vraiment bi may dem euh, di dem euh, sama émi euh, interview ba munoo demal bu la neexee bul ànd ak euh, kii ak euh, avocat te ni ma koy waxee woon dëgg yàlla bi may jëkk a dem dama ànd ak avocat ma dem gars yi daaneel ma mais deuxième bi moom bi may dem bi ma ko waxee affaire bi ba mu defal ma sarax yi mu ma euh, génneloo ma def ko yàlla def ma dem. fa dëgg yàlla mu yomb lool si man vraiment fa dëgg yàlla mu yomb lool comme naan ataaya quoi euh, yàlla def na nag euh, lu na faa moom kenn du ko jeex mbir maa ngi nii passeport baa ngi nii ah man fa yàlla fi mu toll nii fu turam waxee doxal fale bu bu ma neexee fa dëgg yàlla affaire baa ngi nii euh, mu ñaanal ma ginnaaw yàlla ah, waaw euh, defe naa photo bi kenn du wax du man donc mu ngi mu ñaanal ma si daal vraiment ma kontaan lool di ko ñaanal ndëk euh, euh, gudd fan yàlla may ko gudd fan yokk xam-xam bi parce que xam naa ne bu doon xaalis rek la moom bon du ma ko mën a fay waaye moom wax na ma ko sax nee na bu dee xaalis moom mënoo maa fay man damay def te yàlla tax te ni ma ko waxoon noonu la noonu la amee quoi vraiment fu dëgg euh, moom daal euh, je ne trouve pas les mots pour m'exprimer mais daal euh, sëñ Ibrahima Ndiaye daal ñàkk xaaxam wóorul man daal loolu laa si mën a Euh, témoigner euh, une fois encore mbir maa ngi nii waaw def na si xéewal bu baax a baax ñaanal ma ba vraiment ma gis sama bopp boobu ba léegi ndëg euh, te lii ma gën a neex si ay affaire am foo nekk kër mu jël téléphone am amul ay eh, dama jàpp ay dugg na fii moom daf lay wuyu wax la bu fekkee dafa jàpp mu wax la nga ma heure temps loolu de loolu moom moom gën a yéem si ay affaire am vraiment daal Euh, yàlla nañ ko fi yàlla bàyyil di ñaan yàlla euh, mu préparer rek ñëw seet suñu fii New York bon yàlla mën naka donc vraiment mu ngi noonu daal euh, jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf merci beaucoup ah macha allah barakallah kon mu ngi noonu wàllum kayit kon yéen ñi nga xam ne yéen a ci doon leerlu kon leer na macha allah Cheikh Ibrahima ñu tey nag ñu gis ci sa ginnaaw ñaari façon sunguf yu bokkut Cheikh bi Euh, bokkul nag ci laaj bi nga xam ne askan wi ñoo ko laaj waaye man ma jël sama engagement bopp laajteel ko sama bopp mooy sunguf si nga xam ne moom laa jàkkaar lool nekk ci leget gu ñuul gi ñu bëggoon a xam nga mosal ci askan wi mosalaale ma ci man mii di wax ak yow si Ibrahima sunguf soosu euh, ci lu muy dox waaw bu dee sunguf sii moom isi ko nii ci garabu daqaar laa koy jëlee di ko liggéey. garabu daqaar. waaw di ko booleek turu yàlla wi ñuy wax xaadiru yaa xaadiru xam nga xaadiru ak daqaar ñoo tolloo lim ñoo bokk lu ñuy jàpp. xaadiru ak daqaar. waaw am na yeneen ñu wëccee jëflante waaye kii moom borom problème yi nga xam ni dañoo yàkkamti te ëmma jot ñoom laa koy musal lii fi ne nii nii ci alxuraan laa koy liggéey. moom sunguf si. moom sunguf si. kon du sunguf nii nii nii rek. bu la neexee nga sangu bala nga dem <laughs> naa la cee may damay ragal dootu defatu journaliste bi ci leneen de. <laughs> ah kon bu la maa dem sa cheikh bi nag ma ci mosal incha allah waaye bëgg naa it nga mosal ci askanu Sénégal yëpp nag ndax yow jaamu yàlla yi rek ñoo la tax a jóg cheikh bi ndax loola tax ñu euh, déplacé ëttu daara ji indi ko fii ci yow ngir am yaakaar goo xam ne askanu Sénégal yëpp. am am nañ ko ci sa jëmm ji macha allah euh, Cheikh ma ñu gis nga fonk parfum lool euh, parfum yii ñu jàkkaarloo nag bari na ci ay parfum yoo xam ne euh, bokkul bi may soog egsi nag am na bu ma ci tàllal laaj la ko waaye bëgg naa ci ay leeral ngir askan wi mën a xam parfum yii yan façon parfum la ak parfum la lay def ci nit ndax am na léeg ñoo xam dañ naan parfum mën na ubbi bi. Mhm, bii. Mhm. di nuuru sulaar nay ni parfum bi tur yàlla koy liggéey nuuru nuuru sulaar nay ni sangat bi muy àndal ak tur yàlla wi ñu ciy liggéeyal doomu aadama bi ak sarax bi mën nañ cee samp doomu aadama boo xam ni daa yittewoo alal ba pare yàkkamti alal ji doomu aadama bi yittewoo alal ba pare yàkkamti ko yàkkamti ko ngi yàkkamti yàkkamti ngir ngir jot ci alal jooju. maanaam koo xam ni daa ittewoo alal ba pare yàkkamti alal ji ci parfum bii buñ ko booleeg tur yàlla wi ak sarax bi mën nañ ko ci liggéey loo xam ne moom laal ubbeeku lu tudd bu koy laal buntu wërsëgam bi tijjeeku ci kanamam. moom parfum bii waaw te bii lu doon doon doon xale mën na koo tijji nit ki lu doon doon mag mën na koo tijji. kii mooy nuuru sul arnayni ñu bari nag dañoo yaakaar ni nit ñi dañu ciy tabdil da ci def yëf turu yàlla wi rawxaan yi ci nekk lii da leen a itteel a itteel a itteel a itteel te fi ne nii liñ ko def rek mu ko wax waaye daal parfum bii di nuuru sular nay ni ku ci am original bi am na sarax buñ lay laaj ak lu ñu lay liggéeyal jox la nga ko jëfandikoo daal am nag lu ñuy werd muy aw tur yàlla buñ la ko werdee alal noo ko yittewoo loo ko yàkkamti yàkkamti turee ko gën a gaaw ak lii ginnaaw man kii mooy nuuru sul arnayni jërëjëf Cheikh Ibrahima Ndiaye kon euh, leer na euh, Cheikh Ibrahima ñu gis euh, nga fonk sarax lool lool lool ba taalibe yi ci mbedd yi ak ñi nga xam ne seen loxo amaana jotul seen ginnaaw dañoo dem ba xàmmee sëriñ bi ci wàllum sarax ba fu ñu la gisee sax dañ lay gàttandu wàllum sarax ni nga ko fonkee Cheikh Ibrahima lan moo nekk ci sarax. waaw sarax dama ci am fattul akbar dama ciy ubbeeku ci yàlla. man sax ndigal laaj am. ndax sarax yow amaloo ko àpp ndax bis bu set rek euh, dañ lay dañ dañ taalibe yi neen leen ngay ñëw di leen sarax sa su nekk. waaw xam nga fii ci jumaa ji Iba Der Thiam daan jullee euh, moo ngi fii ci Liberté cinq dafa mosu jullee benn ajjuma ñëw toog rek benn waay di dawal otoom romb ma oto bi fay. oto bi daa daw ba tolloog ñun ci sàpp si rek fayal boppam benn kat kat waa ji bëgg a ñëw ci man waaye xamul lu ko téye mënta agsi mu mel ni daal ku tànk yi am problème mënta agsi muy tàllal loxoom yaa ngi dégg tàllal loxoom mu wax ko waa ji ànd ni ko neel sëñ bi ci moom laa bëgg a ñëw waaye xamul lu ma téye allahu akbar sama oto bi fay na mun maa ñëw te kat boobu man maa ngi ci sàppe si ñuy julli. yawmal jumaa. waaw ci biti laay jullee ci jaada Ibadan Thiam yi daan lal foofu man ci laay bi mu ñëwee agsi ma xool ko ma ne ko sëñ bi demal ci jàllo banaana bi nga jënd nangami kiloy furi mu tolloog say at nga joxe ko fee ba mu demee def ko jóge fa oto bi waroon a dem ndar yóbbu ko auto service yi la oto bi daa tàkk ci yoon wi allahu akbar laa ilaha illa allah mu ñëw fi mag jabar jooy ma ne ko waaw yàlla daa dimbali jaar la ko ci man waaye su dul woon man mi nga gis gisanteeloon ci bis bi ma dimbali la ci sarax boobu noonu oto bi buy tàkk da ngay tàkkale ci biir waaye maa la génne laata moo tàkk laa ilaha illa waaye yooyu yooyu dama ko junj nii waaye yooyu xam nga bëgguma koy wax waaye sarax li muy defal nit laa lay wax nga xam ni kooku rawaan yee càng rawaan ñoom ñoo xirtalu ci man ma dimbali ko ci leeru yàlla moo man la ki am ndigal moom day am lu muy gis loo xam ne dañuy murri kiiraay yi mu gis ko damaa dama nag bu dee da koy ñaanal doon ab sëriñam lii ñëw ci moom xamoo ci dara li jëm si ci moom mënoo ci dara ngir yàlla dimbali ko bàyyi ko mu dem waay wallaahi man ñi may ñaanal lii ñëw ci ñoom xam naa ci dara li jëm si ci ñoom man naa ci dara moor a ci mujj sama taalibe bu baax la burki dem laa ko woon ni ko moor fan yi moom da ngay dem police léegi nga dem de waaye nag doo fa yàgg naa la génne waaye faaw nga dugg fa de loolu kay man la di seex bi moorang fa nii nii mooral fa jël <laughs> mu génn la ilaha loolu mooy ku yàlla dimbali di la wan nga xam mu dugg mu dugg ca. waaw heure bii daaw am na sama benn xaritu americain damay bañ dafa amoon jafe-jafe xaalis lool yónnee ma fi deux millions huit cent mille pour ma génneel ko ay saraxi gileem bi ma ko génnelee yeneen xaritu americain bi ñoo ma wooluwaat di ma laaj loo defal sa waa yi na la yónnee xaalis bu bari ndax am na alal ju bari la ilaha illallah te mi ngi bàyyi ko ci sarax. te ñun ñëpp sarax laa jaarak ñoom Côte d'Ivoire am na benn jigéen boo xam ni ay rab a ko jàppoon mënut a toog ak ñetti nit ñeenti nit te daanul ci seen kaw bis moo ko defaralee sarax mu fanaanoo ko boobaag léegi mën na ñetti at daanuwaatul waaye juróom moom ma boole woon ak moom nelaw na yàlla na ko yàlla xare àjjana defoon na sax ay témoignages waaye sarax doole ji mu am gisuma leneen lu ko am lu dul sarax ab sëriñ nag faw mu xam turu yàlla faw mu xam ilmu sadaqa door a mën a jëriñ jaam ñi ndax nit ñi loolu rek mu leen di dimbali sarax nag day ba bakkenub doomu aadama bu naroon a faatu ah sarax doomu aadama bu mën a faatu mën na koo mën mën na koo fanqal gan ci abdullahi mi nga xam ne moo jur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu génnewul woon sarax ci ay giléem ci ab lim waxtu wi nga xam ni ci lay doon waajur yonent bi du ko ci fekk ndax bantaloon nañ ko booroon koo faat la ilaha illallah benn ci ismail la doomu sayduna ibrahima moo waral tabaski su yàlla wàccewul woonum xaaf ñu rey ko moom la ñuy rey te bu ñu ko reyoon ñun ñëpp dañuy bokk ci ñiy dee at mu jot day am nombre de personnes buy faatu. ci doomu aadama yi waaw loolu saraxañ ci musal. xar ma kon sarax daal Seydina Ousmane day téye nit koo xam ne daa naroon a faatu mu téye ak dundam. man de képp ku feebar bañ ni ma kii léeg mu dem woo ma moo ko defaleeb sarax na fi toogaat tuuti. alhamdulilah rabbil alamin alhamdulilahi rabbil bi képp ku nekk ci ay tolof tolof ba mu tar ba Sénégal gépp xam ni kii mi ngi ci ay tolof tolof waxuma la tur yàlla ma bu ñu buñ ma woowee bu ma leen nee génne leen ko sarax nangam suñ ko ko génnelee mu dañ sarax mën na loolu sarax dooleem dañ ko war a xamal nit ñi waaye kenn ku nekk faaw nga xam lay saraxam waaw sarax ndox mu ñuy naan bokk na ci sarax lu ñuy rey bokk na ci sarax lu ñuy lekk bokk na ci sarax lu ñuy sol bokk na ci sarax alal joo yor bokk na ci sarax waaye yii ci des nag nga xam ne moom <laughs> yeneen la man yooyu xam ma ko waaye sarax daal luy jariñ doomu aadama lay doon gannaaw bokk ko joxee nag jox ko ko ci ndigalul yàlla bu yàlla jëlee rek def li nga bëgg Euh, euh, waxtaan bi am na solo lool macha allah euh, waaye mu mel ne li ñu amoon ci waxtu toll na ci jeex macha allah Cheikh Ibrahima sa kàddu yu mujj ak looy baaxee askanu Sénégal ak askanu bitim réew ñi nga xam ne ñoo doon sàkku waxtaan wi. faman saa afal yuminu waman saa afal yat ku yàlla namm ci yow nga dégg topp déggal li génnee ci man lépp ay kaddu la yoo xam ni dafa jot suñ boroom bëgg leena a dimbali jaare ko ci man ku weddit weddi nga loo xam ni soo ko déggee xam ni dëgg la ndax kii ko doon wax soo ne ko jàkk te xam yàlla xam ni yàlla jaar naa ak moom ci ruq door ko bàyyi maa ngi ñaanal ñi nga xam ni amaguñ fattul akbar mm-hmm. di leen soññ ni ku jàpp yàlla te bàyyiwoo ko dina la won leneen lu dul yàlla loo xam ni ci ngay jaare jariñu jërëjëf sang bi. Euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah sëñ jërëjëf Cheikh Ibrahima euh, macha allah barakallahu euh, suñuy waxtaan ak yow lii daf ñuy dal macha allah comme ni nga ko waxee noonu rek la demee jërëjëf yàlla na la fi suñu borom subhanahu wa taala bàyyi ba ca kanam ak kanam te guddal sa fan wéral say cër gën a rafetal xam-xam bi incha allahu taala Euh, ñi ngi sant it bu baax euh, sunu caméraman euh, bi ñu àndal sëñ kan yow ñu ngi lay sant di la gërëm ci liggéey bi rafet na macha allah mun na ala xaari si lonrofi bi maa yefuqu sanna min mahrofi li naa simil onrofi xale di rabba yaa man kafaw sal baa waliyu yaa rahmaanu yaa rahimu yaa ayu wa xuyumu yaa mukrimu najaaka abdukal xadimu sa salah musalliman ala muzah eh, zahil xula wasalaamu aleykum kullukum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërë ngeen jëf ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli nu ay maqaama yàllaw bismi ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli nu ay maqaama yàllaw